Bonsoir et bienvenue à toutes et à après l'élimination du Sénégal et de tout ce qui en a découlé, Donc, pour revenir sur ce fiasco sénégalais, nous allons parler également des perspectives du des perspectives qui s'annoncent sombres, ayons le Qui sont les responsables Comment sortir le football sénégalais euh, du gouffre Nous allons en parler avec nos invités que sont Tassiro Diallo. Tassiro, bonsoir. Bonsoir. Aliou Goloko, bonsoir. Bonsoir. Euh, Mam Fatenoy, bonsoir. Bonsoir, cher. Et vous entendrez également euh, en exclusivité sur la TFM euh, Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille, qui va revenir sur les détails sur ce match. Pape Diouf qui sera également l'invité de Parlons Foot de ce mercredi. Voilà. Donc le débat est campé. mais on me fait signe que Amadou Khan est en ligne. Amadou Kane, euh, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, il est chargé de l'organisation. Amadou Kane, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Diaw ça va bien. ça va alors Amadou euh, daje woon ngeen tey seen biir euh, te xam naa euh, li ko waraloon mooy li xew ci samedi ji ci stade Léopold Sédar Senghor ak jafe-jafe yi fa am yëpp ginnaaw bi Sénégal amee jël ci kanamu Côte d'Ivoire est-ce que mën nañu xam concrètement yan mesure ngeen jël. waaw maa ngi leen di nuyu di nuyu audi euh, spectateur TFM yëpp di jégal encore ci population sénégalaise bi par rapport à lu nga xam ne amoon na vraiment samedi euh, équipe bi éliminé nañ ko mais du loolu moo ñu yitaloon je pense que bu ñu fi ñëwee ba léegi on tente quand même de faire de manière que le football puisse fonctionner on tente de faire de manière que le Sénégal soit dans toutes les compétitions. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mais aussi notre détermination, on est parvenu à faire de manière quand même que le football est joué partout au Sénégal aujourd'hui. Alors donc, euh, maintenant, ce qui s'est passé est grave, très grave, euh, au-delà du fait que nous avons perdu, il y a eu des actes de vandalisme qu'on ne peut pas tolérer, qui n'honorent pas le Sénégal. Euh, même les images que vous êtes en train de montrer aujourd'hui, c'est des images qui ne peuvent pas honorer le Sénégal. Quand le drapeau, je pense que je me la question euh, dans quel pays nous sommes. Mais que euh, les spectateurs qui étaient là-bas, les 53 000 personnes qui étaient là-bas, on peut dire sans se tromper que plus de 99% de cette population-là était venue effectivement pour regarder pour supporter les Lions. Parce que chacun n'est-ce pas, du début à la fin, gars, ils donnent way du tatu, extra, extra. Alors, Amado, oui. vous avez une idée de qui sont ces vandales dont vous parlez là Mais je dis, xam nga lu wóor tey xam nga loolu noonu commencé wul si stade bi l'équipe nationale bu muy jógee hôtel di dem ci stade ba façon bu ne def nañ ko ko mais comme que déjà tout à l'heure en comité exécutif nee nañ dañuy déposer une plainte contre X je ne voudrais pas jiitu enquête bu dara am mais lu wóor tey mooy que dañu jël décision defal un bon document bu nga xam ne dañ koy envoyer la CAF pour war ko ne que nous on avait le la fédération sénégalaise de football l'état du Sénégal on avait pris la décision de ne ménager aucun effort pour que match bi mu mun a respecter les normes internationales parce que la Côte d'Ivoire est un pays voisin un pays ami c'est deux peuples unis loolu mooy benn ñaareel bi tamit nous avons pris la décision bind état du Sénégal pour wan ka ne ñu ngi gërëm président de la république ñu ngi gërëm le ministre de l' intérieur le ministre des sports à travers déclaration yooyu ñu def pour ce marché la mais au delà de cela ñu jox leen information yu nga xam ne moo indi ñaawteef foofu bu nga xam ne ne am na ci biir stade bi donc porte nañ porte plainte contre X mais aussi laaj nañu commission yu impliqué woon dans l' de ce marché la ku nekk si moom na def benn euh, rapport déposé ko au plus tard jeudi à la fédération et que mardi prochain dañuy def comité exécutif pour pouvoir examiner ces rapports la donc euh, ce sont décisions yooyu lañ jël foofu di la wan ne rek que actuellement nii euh, c'est vraiment grave mais au-delà de cela bind nañu aussi fédération ivoirienne de football pour les féliciter mais si jégalu leen lu nga xam ne ne am na nous avons écrit à la CAF aussi en attendant le rapport technique qui va suivre nous avons à la CAF pour dire que le Sénégal c'est un pays de la teranga un pays de grand football donc lu am li vraiment du suñu coobar mais aussi je peux préciser que muy le commissaire de match muy le responsable de la sécurité de la FIFA yi nga xam ne dañ leen def match bi ñoom ñëpp ils ont constaté n'est-ce pas durant les quatre jours qu'ils ont vécu avec nous que fédération ak nguur gi def nañ lépp pour que mbir di jaar yoon mais soo constaté dégâts yi am yëpp amul kenn ku duggoon ci stade boobu jour bi fa jaaroon fuye nañ ko Euh, c'est des dégâts les gens ont dañu utiliser lu nga xam ne ne dal yi nekkoon ci stade bi tout le monde a pu constater cela et da am impression c'est quelque chose qui est organisé parce que bien avant ce match-là les menaces les points de presse qui ont été organisés les sittings qui ont été organisés devant la fédération mais loolu il faut que sénégalais yi ubbi seen bët. a ah, Amadou kon yéen dafa mel ni yéen ah, xam ngeen ki euh, nekk ci ginnaaw lii yëpp. ah mais xam nañ ko loolu xam nañ ko mais. comme je ah, dis kan la donc l'enquête xam nga euh, peut-être que certaines personnes ñooy précipité wu n'est-ce pas di naan ay fédération bii na bàyyi ay Demba na Samba non c'est pas ça ñun lu ñu war a def dinañ ko def bu mu parce que lii nii c'est un lii na réunion de comité d'urgence réunion comité d'urgence la le comité exécutif dañ ko convoqué mardi prochain à l'issue de cette réunion mbir mi dina gën leer mais lu ngay jàpp rek mooy que dinañ informer l'état du Sénégal de ce qui s'est passé que l'équipe nationale boobu may wax ne gars yi dañ ko doon kar di ko tere dem